Mamadou Samba Anne ñu ngi lay nuyu. maa ngi fay. yow sa xam-xam màcc na ci li jëm ci wàllum koom lu ñuy waxtaanee bokk na ci souveraineté économique euh, déjà ñi nga xam ne ñoom la ñu fal yees loolu la ñu bëgg a ñëw tey indi jëmmal ko euh, déjà rek est-ce que lu war a mën a nekk la euh, ci sa xam-xam bi nga xam ni itam moo jëm ci wàllum koom wax ñu yan yoon lañ war a mën a jaar ngir mën a atteindre objectif bi ni mel. waaw man de yaakaar naa ni loolu moom moo war a nekk sax loolu moo war a nekk te lu mën a nekk la pourquoi parce que gis nga bu ñu jëlee indépendance ba léegi yoon bi ñu jël yóbbuwuñu fenn boo seetee Sénégal fi muy jógee day gën ci daanu day nekk pays ci pays yi gën a pauvre ndool ci àdduna bi la ñu nekk ça veut dire que boo demee ba ci yàgg benn moment nga jël benn yoon yoon boobu yóbbuwu la fi nga bëgg mais da nga war a taxaw nga xalaat ban yoon la ñuy jël léegi nag événement yu bari ñëw nañ fi wan ñu nii il faut que ñu dem vers souveraineté économique souveraineté ci beaucoup de choses Covid ñëw na fi Covid ñëw na dal ci dëkk tubaab yi mais ñoo ko gën a sentir lu tax muy dal feneen ñun ñu koy gën a sentir parce que maîtriser wuñu dara dañu dépendre fépp amuñu benn souveraineté yemuñu ci loolu guerre Ukraine ñemul sax suñu continent ci beneen ay géej lépp la ñuy traversé pour egg foofu ñoom moo am guerre ñun ñu gën ko yëg waaw loolu nag moo lay wan ni donc yoon bi nga tegu baaxul bu nag da ngay war a ñoŋalaat sa yoon nan ngay def pour que yow désormais nga mën a yore mbir yi nga am levier yi nga xamante ni mun nga transformer économie bi mun nga changer les choses mais dans l'intérêt du Sénégal loolu nag moom moo indi ñuy taxaw di wax commencé di xalaat te économique souveraineté ci beaucoup de choses parce que loolu rek mooy tax nga mën a génne ci sa bopp boo dëkkee ci kër joxe woo ndekki boo yeewoo ki joxe ndekki bu yeewoogul da ngay tëdd xaar ko ba muy ba mu yeew loolu nag moom mënut a nekk dëkk dafa war a toog benn moment boo xamante ni mbiram yi moom moo koy yoral boppam parce que boo ko yorewul sa bopp rek mënoo dem fen beneen bi bokk na ci tey pour ñu mën a jëmmal li ni mel euh, dëgg la ay slogan la loolu lañ bëgg waaye il faut que mu feeñ ci ñoom ci doxalin bi ci terrain bi. waaw loolu loolu loolu tamit li ngay wax dëgg la parce que Sénégal tamit dañu yàgg jaay ay slogan loolu nag moom moo day il faut que ñu ñu ñu jëmmal slogan yooyu parce que bu boo waxee par exemple souveraineté économique mais da xool yan yoon nga koy jaarale man damay commencer par agriculture boo seete ñun li ñuy lekk yépp dañ koy jéggaani boo seegee Sénégal dañuy taxaw naan la am na taux de croissance am na taux c'est vrai am na mais taux de croissance boobu yëpp fu mu jëm mais ci boo seetee mastodonte société tubaab yi fi nekk ñoom ñoo ko am yóbbu ko seen dëkk ce qui fait que sénégalais bi du ko yëg danga ko naan ay taux huit pour cent sept pour cent ni musu ko yëg parce que jogewul ci moom loolu nag moo war a changer boo ñu commencé ci lekk bi yow ceeb yaa ngi ciy jëlee lu toll ni junni ak lu toppi nga koy jëlee ci di koy importer mais loolu nag moo du yoon alors que yow dara manqué wul sa dëkk pour que nga am ko pourquoi yow ngay jël sa xaalis di koy yàq ci loolu te mën ko def sa dëkk ba pare mën na ko maîtriser mën a maîtriser ku yëpp ba nga xamante ni ki dina ko mën a am ci prix bu yomb mais ci gannaaw bu yem ci prix bu yomb bu mu koy amee mais yow yaa koy maîtriser di nga dem ba ci kanam da ngay jël ceeb boobu di koy génne parce que quoi qu'on en dise défi wu siècle bii ñu nekk wala bii di ñëw moom mooy nan la ñuy nourrir planète bi tey ku mënul liggéey ba nga xamante ni mun nga nourrir sa bopp ba mun a nourrir kenn doo dem fenn te loolu moo am Sénégal pour que mun ko def boo ko defee yow da ngay am xaalis da ngay créer richesse ba pare da ngay am xaalis buy jógee ci biir nga mun a investir yemoo ci loolu da ngay mun a investir tamit ci chaîne de valeur u agriculture boobu ça veut dire que ci kay ni wax ci li ñuy wax industrialisation matière première yooyu yëpp da nga koy transformer pour jox ko valeur ajoutée boo ko transformer da nga ci am xaalis créer benn chaîne industrielle bu dëgër bu xamante ni sa jeunesse bii nga xamante ni ñi ngi nekk fii di chômer ñii di jël ay gaal ñii jël lu ne ñooñu ñëpp mun nga leen créer ay ressources yoo xamante ni créer richesse pour que ñu am liggéey pour que ñu am njëriñ gis seen bopp ci dëkk bi ah, dëkk bi dem. d'accord junj nga ko sànq li jëm ci wàllum industrialisation ponk la. ba nga xam ni bu am solo la levier bi nga xam ni buñ ci sukkandikoo euh, li ñu euh, ñàkk ci li jëm ci ay termes d'emploi dinañ ko fa mën a suqali déjà jàpp nga ni option bu baax la bu nu fentee suñu bopp ci industrialisation mais moom mooy option bi sax parce que dëkk bu fi développé tey <laughs> lan moo ko développé mais ay industrie am la jëlal États-Unis boo nee états lu tax moom mooy ay ay outlet par card ay Facebook ay ñooñu loolu la boo jëlee euh, milliardaires yi fa nekk créé ay entreprises yeeg yooyu boo jëlee France lan mooy seen développement moom mooy seen société yi ñoom Boeing ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom tati ñoom France Télécom ñoom Free ñoom et cetera loolu moom mooy seen développé ay boloo rek yooyu noonu ça veut dire dëkk bu fi développé lii la développé moom mooy benn secteur industriel boo xamante ni dafa fort dafay tirer économie bi non seulement day créer richesse mais day jox xaalis économie bi donc loolu moom mooy solution bi loolu mooy vraie solution te ñun chance bi ñu am mooy du ñu am potentiel parce que Sénégal lépp la ñu war a defar ça veut dire que fu nekk mën nga fa créer industrie parce que dëkk bu presque vierge la donc li nga fi mën a am sa potentiel pour industrialiser ko dafa bari dafa bari léegi nag ñun bu ñu mënul dugg ci loolu bu ñu mënul angu feewu ci loolu waaw lan la ñuy def leneen mënuñu wax développement te mënuñu dugg ci loolu. Ah, secteur privé bi tam am na ci rôle euh, war a liggéey yaax ñi nga xam ne itam ñoo di état wu Sénégal ci ci fànn yu bari ah. waaw loolu nag dëgg la parce que en fait li ñuy wax développement wu dëkk fan la jógee moom mooy un secteur privé fort parce que emploi ku koy créer du doon état état day teg mécanisme. pour que emploi mun a am bu fekkee ne état moom mooy créer toujours emploi loolu baaxul mais état day teg mécanisme mécanisme yooyu moom mooy nga am un secteur privé fort boo soutenir boo àndal boo dooleel boo xamante ni lépp luy am ci dëkk bi da nga ciy waxtaan ak secteur privé bi accompagner ko accompagner ko bu baax a baax a baax a baax a baax ba nga xamante ni bu dee mun nañ ko def bu jéggaani feneen jox leen ko bu dee mënuñu ko def nga jox leen ko ñoom ñu wuti li ñuy wax partenaire stratégique boo xamante ni kooku day ñëw léegi di leen liggéeyal au lieu que ñoom ñuy toog partenaire bi jóge fële ñëw jël marché bi di leen liggéeyloo di leen ciy jox ay miette dafay changer day changer partenaire boobu bu ñëwee mais technologie bi day parte ak ñoom day jox xam-xam bi ñëpp génn ci ñoom ñu génn ci ñun ñu génn ci mun a investir suñu dëkk loolu état moo koy def loolu keneen mënu ko def secteur privé bi mënu jógal boppam waaye tamit il faut que ñoom it ñu gën a góorgóorlu ñu gën leen former ñu gën am ay nit ñoo xam te ni gën nañ leen former ñu gën a xariñ ñu gën a mën a développer wu yooyu yëpp mais loolu état mooy teg yoon buy tax secteur privé bu foor boobu mun a insuffler doon joxe énergie bii tax économie bi mun a mun a mun a mun a mun a dem. mais boobaa il faut que ñu itam diversifier li nga xam ni itam moom moo jëm ci partenariat yi itam. waaw loolu moom lu baax la diversifier ni diversification nag moom mooy ça veut dire yi. boo seetee lan la yow dafa mel ni yow nga yore benn bool ñëpp soxla ko nga am ci ceeb ñëpp bëggu lekk ceeb waaw léegi kon yow yaay décidé puisque ñëpp ci bëgg mais ku ñëw da ngay toog lan nga ma proposé lan nga ma proposé lan nga ma proposé après bu boobaa nag yow mun nga toog arbitrage en fonction de ses intérêts parce que quoi qu'on en dise entreprise yi amuñu xarit dëkk yi amuñu xarit intérêt la xam waaw bu boobaa tamit ñiy diriger ñoo war a xam lan mooy seen intérêt commencé nag di négocier en fonction de nos intérêts bu ñu bu ñu bu jaay dara bu ñu joxe dara pourquoi parce que booy gérer dëkk da ngay prévoir du yow kese loo mënul say doom ëllëg dinañ ko mën donc bu dem vendager ce bien yëpp fàttali xalaat parce que gouverner c'est c'est c'est prévoir prévoir ëllëg donc kii la mënul jox loolu xalaatal xoolal bu ti xalal kii te loolu am na parce que Sénégal fu mu nekk joxe na ay opportunité am na ay opportunité te nit ñi dañ ci bëgg profito donc trouver lay partenariat partenariat yoo xamante ni du doon comme li fa am mooy win lose mais partenaire yoo xamante ni ñoom dañ ciy gis sa bopp yow nga gis sa bopp bu baax. beneen bi changement référentiel politique euh, daanaka dañuy jóge ci euh, PSE. ci li nga xam ni itam moo jëm ci projet ñoom projet lañu indi bëgg ko jëmmal euh, benn changement systémique li nga xam ni itam ñoom bëgg nañ ko indi est-ce que da nga war a faas lépp li nga xam ni jàpp nga ni ci PSE la laale woon bien vrai que c'est horizon euh, deux mille trente cinq la woon. voilà léegi nag xam nga gouvernement bu ñëw bu ne day ñëw ak moom moom nu mu bëgg diriger dëkk bi mi ngi mel ni ñu jox benn chef d'entreprise ki ñëw moom it am nu mu gisee nu muy changer dëkk bi ñi ñëw tamit dañoo am benn vision pour le développement du Sénégal waaye tamit bi ñuy wax mënoo jeter le le le le bain le bébé le la mousse et cetera mënoo ko def parce que ñoom it il faut dire que taxaw ne plan Sénégal li ci nekk yëpp bonul bon na am na li ci baax li ci baax nan lañ koy jëlee gën ko ñoŋal li ci baaxul ñu fexe génne ko élagué ko donc ñoom am nañu seen projet mais projet boobu aussi dañ koy articuler ci li baax li nekk fee yëpp li leen di permettre ñu gën a dem ñu gën a développer Sénégal parce que li compté moom mooy que dëkk bi dem loolu rek compté leneen compté wul donc bul jël ne da ngay sànni lépp seetal li ci baax nga gën ko ñoŋal li baaxul nga dindi ko te am na lu baax ci ñoom lu ñuy defar tamit. déjà lan lu war a doon approche bu njëkk ci wàllu wi ni mel teg jeego teg projet ainsi de parce que euh, étape par étape doo ñëw rek ñëw li nga jàpp ni mooy li baax li yëpp naa ko ñëw teg benn jour mais procédure la ak benn processus bi nga xam ni faa ñu enclenché ko. waaw mais xam nga nag nit boo buggee développé da ngay def lu ñuy wax euh, lii benn xam boroom xam-xam. di wax la matrice de gestion du temps les priorités xam nga dëkk bu ne boo ñëwee dafa am li ñuy wax ay priorité dafa am yoo xamante ni loolu mooy tax dëkk bi mën a gis sa bopp donc yoon bi ñuy jaar mooy par rapport ak seen priorité yi seen priorité yooyu la ñuy teg parce que boo ñëwee bëgg def loo xamante ni du priorité même bu baaxee du jëriñ dara donc identifier d'abord lan mooy priorité yi yan mooy nœud yi yi tax nga xamante ni pour que nga dem yooyu foog nga taxaw ci sans oublier yeneen yi nga taxaw bu dëgër ci priorité yooyu ah. yooyu d'abord moom moo lay guider moo lay teg ci yoon bii tax li nga bëgg def yëpp nga def parce que boo identifié wul priorité yi boo identifié wul vrai besoin yi nekk ci leneen lu mu rafet rafet nit ñi duñ ci di seen bopp euh, jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax euh, du Samba Hann ci disponibilité bi déjà sant nañ la gërëm la bu baax a baax merci beaucoup Ah, di fàttali ni yow sa xam-xam màcc na ci li jëm ci wàllum koom da ngay jàngale fa la nga xam ni itam moo di ca université Cheikh Anta bu Dakar. jërëjëf Diop bu Dakar. jërëjëf.